bés bi ak suma xarit suma wëllëre suma sëriñ sëñ Ibrahima Faye ah, ni ngeen ko xamee tey cant bi eh, maanaam dañu ko def ci waajtaayu màggal màggal gi eh, ma rafet lu teewaayu daanaka tarixa yëpp a ngi fi ba ci présence su labbe eh, kooku nag dama koy rafetlu lool di ci sargal sëñ Ibrahima Faye dafa wane ne senegal nii rek la mën a demee ndax nii la bindoo maanaam nu bokk Euh, waaso walla nu bokkul waaso nu bokkul aussi euh, maanaam ngëm-ngëm ba tey war nañu mën a toog euh, di waxtaan ndax lépp it ci benn intérêt wu Sénégal la ak intérêt maanaam jàmm loolu la firnder tey bi mu invité ñëpp ba invité labbe kooku dama ko ci sargal parce que lii it mooy li président Macky sàll bëgg ci Sénégal maanaam ñu doon diine boo xam ne diine bu ubbeeku lay doon diine bu am tolérance ni ñu koy waxee te moom tey loolu la loolu loolu la wane ñuy ñaan yàlla may ñu màggal ak jàmm ah ña cay dem dem ak jàmm ñibbiseeg jàmm te yàlla nangu ñaan yëpp defal ñu ñaanu jàmm yàlla sàmm ñu sàmm njiitu réew mi ndax bu amee jàmm ñun ñëpp ñu jàmm yàlla defal ñu taw féex ba déwén ñu fekkee ko ñun ñëpp ak jàmm. ñu war a jaar aussi ñi kan la waaw ñooñu day su may xarit yoo xam ne xëy na politique sax euh, du lu leen saxal waaye comme maa ngi ci yëngu ñu bëgg maa jàppale jàppale président Macky Sall euh, loolu mooy maanaam jàppale président rek ci li mu wax mooy nu fekkee fexe. ba ñun ñëpp doon benn bokk ndey bokk baay politique moom am na xëccoo waaye nag aussi yàlla mën na cee wàcc yiw ndax am na ci biir politique ñoo xam ne ci la ñu xamante ban ay mbokk wala ba diggante ay diggante ndox ji euh, kon ñoom noonu lañu ko gisee euh, muy aussi loo xam ne li vraiment lu ma rafetlu la. waaw euh, mooy toogaayu kilifa ci am réew. ndax yu demee nii dana dana dana bégloo jullit yëpp dana bégloo waa kër Cheikhul Khadim dana bégloo képp ku baax ndax li yombul ñëw ci ndigalal président ni ma sa wet lay toog li may def yé li ngay def yëpp ñu àndante ko ci ndigalal président fekk na booba taxawaayam moo ci jiitu mu ni lu ma jàppoon dana tàggu sama kilifa mu boole ma ak ñi ma war a booleel ma ñëw ñu ñii kon yaakaar naa ni eh, di ko sant di ko gërëm ndax eh, woote ñu wuyu si la yomb na yomb waaye ay qualité wuyu si la moo solo te mbooleem ku tekki dara ci réew mi mboolem ku fi fenn ci réew mi ñëw nga fi démb ba tey war nga yàpp la fi premier ministre yi nii envoyé social ndigal président Thierno Alassane ak mboolem ministre yi ñëpp mboolem kilifa diine yi sëñ Ahmad Badawi mu Cheikh Mouhamadul Fadil mboolem comité scientifique bi kër Seydou Xaaji Malick kër Seydou Abdoul Xaaji Jërëm sëtu Rasulullah yaa ngi nii sëtu Maam Limaamu Laay yaa ngi nii eh, labba yaa ngi nii ak chrétien yaa ngi nii chia yaa ngi nii ñu eh, réew mépp ñëw politicien yaa ngi nii parti politique yëpp ngi nii waaye sa sa sama daara yi sama njaboot yaa ngi ni waa Njaxate ngi nii ak waa kër Alaaji Biral Fay kon dafa mel ni eh, maa ngi sant yàlla daal maa ngi sant yàlla yéen hmm? bis mooy fàttali ko la sama bàyyi defaloon Cheikhul Khadim fàttali tamit sama ndey daan dund waaw ci sëñ Abdoulaye Jaxate soxna Ndeye Jaxate ak ak soxna May Munu Kebe mi nekkoon kër Alaaji Matoum Seydou Xaaji Malik loolu lay fàttali ak njàngale baax ak njàngale jub ak njàngale lan mooy réew mi ak fexe réew mi lépp nekk benn xuuloo bi ak xeex bi amul solo ay kilifa duñu xuloo ko xeex moo tax ñun nitu diine ay fédérateur lañu te ñëpp daje nañ fi maa ngi koy wax léegi madame maa ngi koy wax léegi Ibrahima noonu laa ko waxee tamit euh, premier ministre noonu laa ko waxee ministre Thioné Alassane Sall noonu laa ko waxee Augustin Tine ak euh, ba ñu dajee euh, bërki démb ci ci njaalum Bara Sidi ak Mansour Faye noonu laa ay jàngalekat ay jàngalekat lañu ay nitu diine lañu waaye nag di ko def nag ngir réew am jàmm di sant ñëpp di gërëm ñëpp xam werante ak xastante ak xuloo yóbbu réew fenn émergence nag du slogan lu ñuy dund la di vie au jour le jour les hommes qu'il faut nañ leen mettre les places qu'il faut président nañ ko wax li xam li xew wax ko dëkk ndax bu ñu bëgg réew mi jëm ci kanam mooy dañoo war a nekk benn bañ di xëccoo bañ di xiiroo lii nag ndam la waaye ndamal lislaam la ndamal kër Seexul Xadim radiyallaahu anhu waaw di sant waa koñ bi nag ndax fa nga dëkk nga woote fa ñëpp ñëw say bokku ñëpp ñëw la war lépp ñu def ko nga feranku laay yóbbu tu fii laa dëkk fii laa juddoo réew mi fekk si ma fi kon maa ngi sant suñu borom subhanahu wa taala